yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàngale mi ak juróom-ñett yàlla yónni na yonent yàlla yunus ci dëkku ninu nanu bamtu nettali yi weesu benn ndax wa Israyil gëm nañu li leen yonent yi wax ñi ëpp ci waa Israyil gëmuñu woon li leen yonent yi wax waaye am na ci ñu gëmoon ñaar ndax yonenti baal yi mënoon nañu wàccee safara walla taw déedéet ñett lan moo xew bi Ilias ñaanee yàlla mu wàccee safara yàlla dégg na ñaanu Ilias te wàccee na safara mu lakk saraxu Ilias ngir wone kan mooy yàlla aji dëgg gi mbind mu sell mi nee na ci Yunus saar benn aaya fukk ak juróom ñaar yàlla yónnee aw jën wu mag mu wan na Yunus Yunus nekk ci biiru jën wi ñetti guddi ak ñetti bëccëg yunus saar ñaar aaya juróom benn ba aaya fukk wàcc na ci ron tund yi bunti réew yi ñu dee tëju ci sama gannaaw ba faw waaye yow boroom bi sama yàlla génne nga ma ci kàmb gi ma mucc ba dund gi génn ci man sama xel dem ci yow borom bi te ñaan gi mala ñaan àgg na ba ci kër gu sel gi ñiy màggal yàlla royal yi amatuñu pexem mucc man ci sama wàll ci kàddu yërmande dinaa defal sarax dinaa def li ma dige yàlla rek musalaate yàlla aji sax ji wax jën wi jën wi yàbbi yunus ci tefes gi bu leen fàttee ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla yónni na yonent yàlla yunus ci dëkku niniw nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla yónnee yonent yàlla yunus ci niniw amoon na beneen yonent yàlla bu tuddoon yunus benn bés yàlla wax yunus ne ko mu dem ci dëkku Niniw ca réewu Asiri waxleen ay kàddoom Niniw ab dëkk bu mag la woon waaye waa dëkk ba doon ay nit ñu bon waa dëkk ba duñu woon yawut te doonuñu woon topp yàlla waa Niniw ay noonu waa Israyil lañu woon Yunus soppul woon waa Niniw kon bëggul woon def li ko yàlla sant noonu Yunus dugg ci ab gaal di tukki jëm feneen bi ñu nekkee ci diggu géej gi borom bi yebal ngelaw lu mag duus yu mag lool di waaj xar gaal gi ngelaw li jolli nit ñi ci gaal gi tiit ñuy tudd seeni yàlla di wàññi bagaas yi ngir gaal gi woyof yunus mënul woon rëcc yàlla yàlla xamoon na fu mu nekk booba yunus a ngi doon nelaw njiitu gaal gi yee ko ne ko jógal ñaan sa yàlla ngir mu walluñu noonu ñu tegoo bant ngir xam kan moo tax ngelaw lii am bant bi dal ci yunus yunus ne leen yawut laa borom bi mooy sama yàlla yàlla aji kawe ji sàkk suuf ak géej yunus ne leen yàlla dafa am lu mu ko sant waaye moom bëgg ko def moo tax muy jéem a daw yàlla mu ne leen ñu sànni ko ci géej gi kon ngelaw li dina dal bëgguñu woon def loolu waaye mujj gi ñu sànni ko ci géej gi ganaaw bi waa gaal ga sànnee Yunus ci géej gi ngelaw li ak duus yi daldi dal waa gaal gi tiit lool ñu ne léegi dinañ topp yàlla ñoom itam waaye Yunus deewul yàlla yónni aw jën wu mag mu wann yunus yunus nekk ci biir jën wi ñetti fan noonu yunus ñaan yàlla gërëm ko ci li mu ko musal bi mu ko woowe yunus ne mucc ci yàlla la jóge yàlla sant jën wi ne ko mu dem ba ca tefes ga yàbbi fa yunus noonu yàlla santaat yunus mu dem wax waa niw ne su ñeen fukki fan weesoo dina tas dëkk ba ndax seen bon yunus daldi dem niniw wax li ko yàlla yónni waa niniw ak buur ba sax dégg yéeneb yunus ñu gëm yàlla ñu bay def lu bon tey ñaan yàlla mu jégal leen ñépp bokk woor soli ay sagar amul boroom daraja wala baadollo jur gi sax ñu xañ leen lekk ak naan yàlla gis ne nit ñi tuub nañu mu yërëm leen jéggal leen yunus mer ci loolu ndaxte bëggul woon yàlla baal waa niniw mu génn dëkk ba fa féeteeg penku ba ngir xool lu yàlla di def ab garab gu ndaw ci wetu yunus ngir mu aar ko ci naaj wi yunus bég lool ci garab gi waaye yàlla yónni ab sax mu lekk garab gi noonu yàlla ëpp ngelaw lu tàng naaj bi di lakk yunus yunus mer ci li garab gi dee noonu yàlla ne ko yow am nga yërmande ci garab goo sàkkul ndax man waruma am yërmande ci waa Niniw yi ma sàkk te ñu nekkoon ci lëndëm fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lan la yàlla wax Yunus yàlla wax na Yunus mu dem Niniw yëgal leen xabaar bu jóge ci moom ñaar lu tax Yunus bëgg ko woon def waa Niniw ay noonu Israël lañu woon Yunus bëggul yàlla musal leen ñett ndax Yunus def na lu jub bi mu làqoo ci gaal gi déedéet Yunus dafa dégg yàlla ñeent naka la yàlla walloo Yunus yàlla dafa yónni aw jën wu mag mu wann yunus yunus nekk ci biiru jën wi ñetti fan juróom lu tax yàlla musal yunus ndaxte yunus ñaan na yàlla te rëccu na li mu def te itam yàlla bëggoon na ba tey mu dem wax ak waa Niniw juróom benn bi yàlla waxaatee Yunus mu dem ni Niniw lu Yunus def Yunus dem na niw mu wax leen ne yàlla dina sànq dëkk bi bu ñu tuubul fii ak ñeent fukki fan juróom lu tax yàlla musal dëkku ni niw ndaxte nit ñi tuub nañu rëccu seeni jëf yu bon bàyyi bàkkaar te ñaan yàlla mu baal leen juróom-ñett ndax yunus na ci li yàlla musal waa Niniw déedéet waa Niniw ay noonu Israël lañu woon Yunus bëggul woon yàlla musal leen juróom-ñeent du sax yàlla saxal ab garab ngir mu aar Yunus ba noppi yónni ab sax mu lekk garab gi dafa doon yee Yunus ci ay mbiram yàlla ne ko yow am nga yërmande ci garab goo sàkkul ndax man warum am yërmande ci waa niw yi ma sàkk te ñu nekkoon ci lëndëm fukk lii lan la ñuy won ci mbir yàlla yàlla bëggul kenn nekk ci réer bëgg na ñépp xam yoonu mucc gi yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla xam na lépp yàlla xamoon na bàkkaar waa ni niw yàlla xamoon na fu yunus làqu yàlla mooy boroom doole yàlla moo yilif ngelaw li ak duus yi yàlla moo yilif jën yi gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla yónni na aw jën mu wallu yunus yàlla yërëm na waa niniw bi ñu tuubee beneen yoon dinañu waxtaan ci li yàlla yónni ay yonentam